combat là où nous sommes c'est délicat il faut soit combattre soit baisser les bras simple. Faites des morts tous les patriotes pleurent c'est très logique papito ni mu mënti demee si yéen la bokk ak lu ko mere mere mais balaa may ñëw foofu y a deux choses qui me manquent actuellement deux choses qui me manquent Cheikh Omar Diagne il manque Abdou Karim Gueye il nous manque sur deux points tout simple tey Jamra Palestine jullit yaa ngi fay dee ñu ngi rey nit ñoom ñu topp ay boy bi sant Cissé di ko topp ci wax ci ay affaire góor jigéen ñoo xam xewal na fi ñoom ñu ne ay jullit léegi l'islam la ñuy défendre mais ONG ya Omar Diagne tey manqué nga tey si éveil éveil religieuse bu amoon Sénégal li nga doon def éveil religieux bi tey Cheikh Omar Diagne tey foog ñu libéré ko oui il faut qu'il libre parce que dëkk yëpp ñu ngi wax ci Palestine mais Sénégal ñëpp a daw res ba pare ñu ne dëkk jullit la gaa fay dee tey lu Toussaint ngeen feete feetu loo xam xamu leen ko sax di ko feete Sonko ne yàcc hôpital li yàlla di def bëgg ko sànk mu sànk leen ba jàkkaarloo maître Clédor waxtaan ak moom ci kaw armée jël ay responsabilité am les médecins militaires li ñuy éviter si suuf ñun ñëpp xam nañ mais infernalement foog ñu am ndax foog ñu xeex jooy bi bëri na lool certes foog ngeen jooy mais lu tax ngeen di jooy ak lan moo fi jar jooy ak lu tax entre le 1 octobre et le 22 octobre 10 500 sénégalais yéen ay jeunes ñu waroon voté am carte électeur war voté ngeen mën a quitté géej gi ngeen mën a quitté sénégal dugg ci géej gi te ngeen waroon xeex Macky Sall tey Papito Kara tey xam nga ne tey moom mi nekkoon voix autorisée tey bu fa toogoon organisé xeex bii heure moom tey lañ ko doon rey wala jour bi mu décédé si ndox bi samedi la doon dee te dagoon nekk dee bu gën a logique dagoon nekk dee bu ñu gën a am yaakaar ndax labul ci géej gi de ci kaw gaal gi la dee ñu sànni ko ci ndox bi dafa am nag dee géej gi fees jël lu tax yéen ñëpp xale yi di dem yee ñëpp jom naan xale yi kan moo leen di jox paas ku leen muy jox paas

59 96 00 Matar Sylla bëgg naa boy mooy kan boy que laala booy yi dee géej yëpp Marème Faye Sall moo leen Papito Kara ngeen foog ni dina fi bàyyi soxna bu tey nii projet bi mois de février toll nii yegg si nii nii nii bi bëgg lu yomb à eh, un point que jël bi mu ngi même ñaata ñit ñoo nekkoon si gaal gi sol ay yëre yu diis yor yëre yu diis ku nekk mën ko dimbali même bu dee benn yëre mu amaat chauffage ci yaramam doo leen ma a dañ ko seetaan mu dee ndax sedd ay nit ngeen ni waxal ko waa ñu bëri dañ naan agent secret le grand bi day wax lu bëri muy ñëw waa waaw lu may wax lu bari day feeñ xam nga leen moo tax muy feeñ jiituwuma kenn de jiituwuma gars yi ci dossier bi comme ça ma wax ñu ne ma grand bi waxoon na ko déedéet Bokul, bok ci dossier bi ak ñu lay wax ci dossier bi bokkul chaque jour ma répété leen loolu ba Macky ñëw na France fi ma def live Facebook coupé ma def live YouTube ma leen le protocole de l'Élysée pour lan ma le protocole de l'Élysée du lépp la wax ci live tam loolu rek sama defu dafa am yoo xam état la concerné concerné wul ay nit neen man bu ma toogee fenn toog fenn war fa dugg jël lu may jël nit ñëw bokk Sénégal dugg wax ci ki ki war jox li muy wax mu génn ma dugg kooku ne ma mais yow seen waa ji lii ak lii ak lii ak lii da ngay génn ñëw live nit ne la mënul nekk ak yaa ngi dem de gauche ak yaa ngi dem de droite ba Macky newaat coppet Sonko 1 2 3 4 le 5 mu indi ko France ne day faju ñun man pas kuruma ak ñeneen ak ñeneen gis nga li leen dëj France munu leen delloo moo taxoon keroog dem leen sama live YouTube ma ne leen Sonko sera extradé ou évacué dem leen sama live YouTube gaaw nee naa leen Sonko sera

le foog nucléaire est et explicite pour document andi Ousmane Sonko fii réewu tubaab la ak Sonko nek nek nek politicien kenn ci parti politique bi mënul signer pour dugal Ousmane Sonko fii c'est impossible kenn ci parti bi mënul signer pour dugal fi Sonko c'est impossible bu dee am na ay jabar wala jabaram boo xam moo nek ci këyit bi moo xam ban la ci boobu noonu

Ousmane Sonko ñu andi ko solution or c'est archi faux je li muy wax maître la dina déclaration Qu'il a que dina jël photo à Ousmane Sonko pour vous dire mais il tient toujours ses facultés mentales Sans éclairer. clair femmes, si nag bu te ñu leer ko ne gëmloo leen ne comme ragal ak tàppet bi ñu jaay Macky Sall moom lañ leen jaay won leen ne carrément sénégalais yi parewuñu pour dimbali seen jëkkër sénégalais yi parewuñu jaay seen bakken pour seen jëkkër sénégalais yi parewuñu dem jëli seen jëkkër hôpital gee mu tëdd seen jëkkër bu dee yéen ay or seen jëkkër dafa dépassé loolu Ousmane dépassé na affaire bi sama biir kër maax ma ma bokk philosophie maman bi jëm jëmbi sëñ ba du jabar du doom du ndey du baay gisuma ku may tere yeggali combat bi ku ma ko nar tere dama lay faxas boo deewee sa dëj dum ko dem pour commencer duma sax bëgg a wax si yow ndax man noonu lay combattre su may combattre bëgguma sentiment Sonko fa la tollook sénégalais bu leen neexee nag sant Mbàkke bu leen neexee sant si xam naa sama gars yi moom yéen xam ngeen gars <laughs> yi yeneen laayfar yaa ngi fi de ñoom duñ leen may dara si seen i tour la ñuy jaar di rek fëgg fi ñi fëgg saaga seen ndey comme man nag li leen wax laa leen wax man nangu sëñ Moustapha Saliou la nangu sëñ Moustapha Saliou la kilifa yu bari wax nañu ak jabaru Sonko yi pour mën a évacuer seen jëkkër andi leen fii pour mën ko faj mais yéen soxna yi ma jox leen benn secret de man fi may fajoo ku fa <laughs> boo génnee ti administration laa leen xam lan moo tax man combat bi je n'ai rien à ndax kenn mënu ma nommer dara. day am kayit yoo xam ne gis nga article bés bu la ko armée bi ne lee article ne la yow article nga tee nga gis nga la moo tee bu ñuy wax noonu le mot tee bés bu ñu la ko waxee tee moor administrativement tee mort gars yi faj siw ñu sonkoo de xam nga ñun ñu ngi ci sonko 2024 ñoom ñu ngi ci sonko ne sera jamais ak sonko sera président en 2024 ak ñi nekk ci Sonko ne sera jamais président bokkul même buñ ko fi andee ne 2024 il sera candidat waa supposons andi nañ ko France dañ 2024 il sera candidat il y a des fi qui yoo xam ne booy ñuy tëj prison Boy délinquant yi bu ñu la prison bu ñu la delloosee Afrique doit def 6 mois da ngay dee daam loo xam ci biir kaso yi fii lañ koy pikiree kon Sonko bu ñëwee France boo leen dof dofloo yéen patriote xam nga depuis keroog maa leen naan semaine bi ça sera une semaine très décisive pour nous lundi mardi mercredi dog comme live fër yi yëpp nag commencé nañ ci live fokk wax ji leer parce que évacuation bi xam nga fi mu jóge ki géré keroog wax naa ko ci live bi youtube ki géré pavillon Teranga le commandant en personne a été relevé ndax lan bi ñu ko laajee dossier médical Ousmane Sonko il avait catégoriquement refusé ñu relevé ko mu amoon mise en demeure ak kii 60 jours 60 jours de punition la amul 60 jours dans l'armée boo ko xasee tëdd dañ lay yóbbu jugé libéré la automatiquement en tant que commandant de l'armée parce que Ismaïla Madior Fall moo ko woo mu bañ. mu remonté ko ci Macky Sall Macky Sall remonté ko ci Mbaye Cissé Mbaye Cissé wàccee ko ci armée parce que armée la dañuy di le colonel bi ñu mbëkk muy gérer réa Jérôme Bandiaka ki kat kat bi colonel bi gis na leen jaxrañ wa jaxrateñ lan moo ba tey enquête amu si ba ñu bëgg rocc Ousmane Sonko de gré attendez bës bu ñu amee autorisation rocc ko rek c'est parce que ça sera dëgg rek fii réewu tubaab la man ñi ma toogal wax si ay tubaab lañu ils ont été fii boo àndee ak sa yaay ak sa jëkkër di accoucher sa jëkkër mooy dugg ci salle bi sa yaay du dugg ci salle bi ndax bokkul Ousmane Sonko bu fekkee dañ ko évacuer c'est parce que c'est de gré ça ne sera pas de force kenn du ma wax loolu ma xamul ay di muuroo waat di wut fu ñuy jaar bu ñu ko évacuer fii c'est parce que am na jabaram bu signé bu ñu ko évacuer rek c'est parce que am jabaram bu signé te mos fi wax ci premier grève de faim bi ma leen bés bu Sonko deewee même ay jabaram duñ dugg ci Ziguinchor ñu bëri classement ci affaire boobu code 250 du ma teel sant wax lu bëri mais damay amor damay teeru wax mu ñëw ma amortir ko xam lépp bàccal ndax mënuma di développer lu bëri mais Sonko bu ñëwee mooy ku mu ne sax mooy nekk candidat gis nga bés boo leen dof dofloo ba document Sonko yi génn même ku Sonko ne mooy nekk candidat xam nga ban wax lañ ci am ñun dof du fale walla ku wéru mënta wax lu yenn bu wax boobu la ñuy campagne keneen ku Sonko teg keneen ku Sonko teg day ñàkk ndax waxoon naa leen ko te dam ku dul Sonko boo bokkee ci élection yi Tinubu premier tour lay gagné à 52 pour cent kooku si l'Élysée kii laa décidé le protocole de moo jëlee Macky fii dem ba Côte d'Ivoire pour lan mu dem ba Côte d'Ivoire nag kooku nag yeneen détail la parce que pour loolu problème géopolitique la te ñun ñu ngi ci Sonko problème géopolitique bi moom bàyyi naa ko yeneen booy africain yi ñu débattre Patriot, Patriot, Jigen bu jaaxle mën na janaxe signé pour sauver bakkenu jëkkëram mais lu tax Ousmane Sonko nekk hôpital principal pavillon teranga bloc raya mën di diriger dëkk bi à sa manière Macky Sall nekk biir palais présidentiel ñu koy garde xool ñoom ñaar ñoom ñu ngi leen di garde mais kan mooy diriger dëkk bi qui est plus crédible entre ces deux président kii Sonko kon Macky Sall mënul évacuer Sonko mais France mooy évacuer Sonko ak kat kër kilifa diine yëpp yi woo soxna ak Ousmane Sonko yëpp wax ñoom yëpp ñaan jàmm la ñuy dox ñëpp yéen bugg a jël Ousmane Sonko ne coppet rocci ko ci loxo patriote yi Andi Tugol, extradé, et puis c'est la fin. Il ne sera plus jamais. Li Moustapha Diakhaté waxon non ñom ay waxu ray lañ doon wax. Secrétariat d'État américain lim len wax mo len karawam bu mu manké d'ici 2024. Bu karawam manké wul xel bi mën na manké. Xel bi nak pour mu manké ci ay soxnaam la dépendre ndax Sonko warul jóge hôpital principal ñëw France faju si Sonko hôpital principal lay jóge dellu cité kër góor gi wala mu dellu sibi kotaan ñu dem génnee ko fa dañuy dem génnee sonko man looloy sama philosophie loolu laa leen bëgg wax yéen munuma mere nag jabar ousmane sonko yi c'est impossible ay jigéen lañu comme yéen gars yi yéen ñëpp yaa ngeen toog ak seen jëkkër di katante ay naan soxna yi gauche droite yéen ñëpp yaa ngeen bokk seen jabar di katante dafa sedd faal dañ koy teg ci juste rek teg ko ci équilibre nangul kii lii nangul kii lii nangul kii lii jéem a conscientiser nag ki nga xam ne moo ñu nar a sacrifier ndax moment bii ñoom soxlaatuñu jaar ci Ousmane Sonko ndax si signature Ousmane Sonko bokkatul prisonnier la si ñoom mais c'est otage politique la boo gisee xeex bu ralentir yëpp Ousmane Sonko lañ ñu bloqué comme otage maa ngi koy répété depuis boobu ngeen bañ Sonko li ñu téye comme otage politique. gars yi foog ñu combat